may yéen di euh, gërëm bu baax di wax ne tey dañoo ñëw fii si Touba pour euh, xool euh, dispositif bi ñu teg en place pour préparer magal bi ndax vraiment lépp jaar na yoon moo tax donc ñu dem seeti waa service d'hygiène ñoom teg nañ seen dispositif lu ñu amoon daaw def ko daaw lu ëpp la ñu def parce que am nañu ay moyens yu bees léegi te moyens yooyu yëpp indi nañ ko bi ñu jógee service d'hygiène dem nañ aussi xool bu baax lu ñu def au niveau du SAMU national SAMU national ñëpp xam nañ ko mais fii si Touba ren dañ fi inauguré benn antenne bu bees parce que SAMU day samp léegi fii si Touba loolu itam nekk loo xamante ne vraiment ñu koy rafetlu dispositif médical bi itam danañ ko mettre en place de partout à Touba képp koo xamante ne bëgg nga faju rek am problème mu santé rek si bër màggal bi si sa boor ñu mën fa teg benn poste wala benn structure avancée bu la mën a jël en charge loolu nag dafa laaj ressources humaines yu bëri dafa laaj personnel bu bëri te lu ëpp ñetti junni nit ñoo xamante ne dañ leen fi indi ñu gérer màggal bi ñu ngi fi déjà préparé wu pour ñëw mais il faut que ñu xam ne màggal bi dafa nekk ci benn contexte pandémie moo tax ñu fagaro bu baax ci ay masques indi nañ de million de masques pour que chaque fois un pèlerin bëgg effectivement donc masque ñu mën ko ko jox bon nag taxaw nañ pour que màggal bi ñu def ko dans les meilleures conditions dem naa nag saytu hôpital bu bees bi nga xamante ne président dana ko ubbi joxe caabi samedi bi ñëw hopital bi nekk na au point hôpitalu ñetti téeméeri lal la mais spécialité yëpp ñoo fa nekk muy hôpital boo xamante ne dëgg yàlla hopital de référence la dana tax ba kenn dootul jëlee malaat fii si Touba wala si dëkk yi féete ak Touba di ko yóbbu Dakar parce que hôpital bii nekk fii yaakaar naa ne si hôpitaux yi gën a nekk au point la en Afrique et particulièrement au Sénégal